ça va La rubrique. C'est gênant et puis euh, c'est pas hygiénique, n'est-ce pas Oui. Alors, euh, je pense que Nedem, euh, où j'étais pas, c'était hier ou avant-hier, mhm. on parlait des infections urinaires. bi may wax ci infection urinaire yi maa ngi wax ne. mën na nekk loo xamante sax tey mën na la complications ci mhm. infection vaginale yi. parce que pourquoi parce que euh, fi nga xamante ne fa la ñuy partie ak partie génitale bi dañu donc li qui fi rek affecté voilà euh, partie bi. donc muy ay infection yo habituellement jigéen dañ koy am des fois sax ko dinañ ko te duñu xam exactement lan moo leen euh, parfois duñu a détecter ndax c'est une infection ou c'est quelque chose de normal par exemple quand on parle des pertes blanches ñëpp xam nañ ne perte blanche dafa dafa normal ci jigéen loo xamante la suñu yaram partie génitale moo produire c'est quelque chose boo xam dafa bokk ci li euh, euh, permettre une flore vaginale de vivre en fait ça fait partie par exemple taille boo nekkee sa période ovulation habituellement on a d'habitude non ça l'est annoncé oui on a tendance à semaine nous deux jours avant ou trois jours avant tu remarques que tu as des pertes blanches assez abondantes jour ovulation est pareil ba ni ngay sa période menstruation d'accord donc mouille l'eau xam normal alors donc perte blanche comme je dis c'est quelque chose de normal chez la femme après, ce qui n'est pas normal chez la femme, c'est une perte blanche qui change de couleur ou qui a une odeur forte. Alors, à ce moment-là, elle ne sera même plus blanchâtre quand elle devient un problème. La perte blanche bi dafay mujj changer couleur soit a am couleur bu jaunâtre ou mu am couleur bu marron, marron non' lay def wala mu vert donc trois couleurs yoy la perte blanche marron vert wala jaune foncé alors bu ñetti couleurs yoy amérique, ça veut dire que là il y a un problème tu as une infection maintenant infect ci couleur yooyu tamit dinañ définir infection bi fan la toll couleur bu nekk am euh, infection bi euh, maanaam degré wu infection bi mu en général quand c'est jaunâtre c'est une infection boo xam elle peut être traitée facilement quand elle va jusqu'à changer voilà Vous demee nag ba nekk euh, par exemple perte blanche boo xam te dafa marron là ça commence à être compliqué l'infection est encore plus avancée bu verte nag moom loolu kenn waxatu ko boobu beneen niveau la encore voilà yaa ngi gis par exemple kii moom tey dafa teg serviette hygiénique euh, je pense que protège slip la technique mais il y a ci kaw protège slip bi mu ngi am tache bu marron bon comme ne c'est dû à des pertes blanches pertes blanches bi ont changé couleur ni donc ça veut dire que qui de femme infection bon comme ne mon ngi ci moom donc lii mooy ni que euh, tey mooy def différence ou euh, pertes blanches infection bi c'est des rapports sexuels alors infection ça peut venir de plusieurs choses ça peut être dû à des virus mm-hmm. ça peut être dû à, à des bactéries

je pense ah qu'on avait fait un, truc là-dessus où il y avait le docteur Abdoulaye Diop qui expliquait que nous avons des bactéries euh, de bonnes bactéries et de mauvaises bactéries Bonnes bactéries, il existe déjà dans une flore vaginale ci une vagin le euh, bactéries yu non, nous, nous ñoom ñooy traité vagin bi Nous ñooy autoproduire ci biir ñooy nettoyer vagin bi ñooy def les moo ñuy tout le temps d'utiliser gel ay gel pour nettoyer parce que tout simplement plus ngay nettoyer plus ngay rey bactéries yu alors il faut pas trop les utiliser une fois en passant pour éviter justement rey bactéries yu bactéries. bactéries yu nous yooyu bu ñu bactéries yu nous. yi li nga ci dul xam mooy tu fais une porte d'ouverture aux mauvais bactéries alors mauvais bactéries yooyu nag ñoom ñooy dugg créer la ay infection indi la ay problème nga commencé am ay ay perte blanche yoo xam ne dañuy changer couleur ay xet yoo xam te ne da nga koy am commencé am ay démangeaison. commencé di di di def ay fuite de de am na ñoo xam ne sax dañuy dem ba dañuy def ay dañuy dañuy mel ni ñu gis seen règle alors que du ay règle maanaam ay perte de sang yu ñuy am loolu yëpp daf koy am dépendre du degré d'infection bi nga xam Nous ne nga la évaluer au fait infection par rapport ak manifestation Nous muy am am perte blanche yoo xam de couleur mais dañuy am odeur bu ñu odeur rek ça veut dire qu'il y a une infection là-dessus l'infection elle n'est pas trop grave c'est une infection qui peut être traitée facilement alors moi waral y a de mauvais de bons bactéries xam nga bu bactéries automatiquement nit ñi nañ ne c'est quelque chose qui n'est pas bon qu'il faut enlever. les bonnes bactéries c'est vrai que ça a une connotation négative déjà voilà quand on dit de bonnes bactéries mais c'est-à-dire que les hmm. bactéries euh, ñun comme li wax suñu flore développé salte mooy dindi salte yi traité salte yi les bactéries hmm. yooyu nag ñoom ñoo def hmm. salte ñoom bactéries yooyu noonu nga xam te ne dañ jàpp ne bactéries ay bactéries yu bon la ñoom bactéries yi loolu mooy seen rôle parce que au fait bu ci nekk am nga rôle boo xam te ne moom ngay joué mhm. donc su bactéries yooyu noonu demee ba affaibliru rek loolu mooy y a une porte d'ouverture aux infect aux mauvais bactéries yi nga xam ne ñooy dugg après xeex ak ñoom rey leen ñëw teg placé wu. après nag euh, il faudra faire de bons traitements ak yooyu noonu donc médecin yi en général boo demee par exemple da ngay euh, da ngay gis boo demee consultation gynécologue par exemple par exemple quand tu as des douleurs de bas ventre wala que tu as des pertes euh, des règles yoo xam ne dañu am dañu nekk en retard. wala nga commencé di di gratter wu di am ay démangeaisons et cetera boo demee si médecin bi si gynécologue bi boo seetloo daf lay doigté. Mhm. day jël gant bi mu dugal doigt am génnee perte blanche bi en fait à la base loolu mooy rôle am dafay génnee perte blanche bi xool couleur perte blanche bi def ko ci benn genre kii ndaw non lolu c'est après lolu bu démé ba xol ba paré ba def constat au perte blanche ba paré mhm. ba xamné perte blanche bi daf jar nañu yóbbu ko analyse ci la kay dogo def ci bocal bi pour que ñu mun ko yobou dem xooli ko analyser ko xol ndax yaa pas amul leneen lu ci rax ak ñoomin sen xool exactement lan mooy euh, fièvre bi nga xamné mom nga am exactement mais sinon si c'est une consultation normale dañuy dugg dañ lay doigté juste euh, guéné perte blanche bi médecin bi day xool bu xoolee couleur perte blanche bi dina xam ndax perte blanche bi infection bu jar a traité par tel maanaam traitement bu gudd wala c'est juste un truc boo xam te ne euh, traitement bu gaaw la fay nekk bu ko xeeñee tamit dina mën a xam exactement ban type infection nga am moom ci noonu lay juger sa perte blanche yi ak bien sûr info yi nga koy jox ci ban partie moo lay métteeg ban partie parce que ñoom loolu mooy seen liggéey à ce moment là ils te font un traitement bi nga xam te ne mooy adapté wu à ça donc juste pour dire aux gens qu'on ne va pas avoir le gynéco forcément parce qu'on est enceinte non c'est pas parce qu'on est enceinte que dañuy dem seeti gynéco wala da nga yaakaar da nga biir nga war a dem seeti gynéco tay lépp loo xamante ne da ko am comme gàllankoor ci sa yaram maanaam ci sa partie génitale ngay am par exemple ay ngay constater ci sa slip à chaque fois boo solee sa slip par exemple boo ko génnewee nga gis mu def tache bu marron tache bu vert wala mu def tache bu jaunâtre ça veut dire que sa perte blanche change changé nañ couleur mhm. donc automatiquement da nga war a dem consulter ci médecin loolu mooy yoon bu fekkee ne tamit da ngay da nga sol sa sa sa slip tu te rends compte qu'il y a des taches de sang alors que doo nekkoo ci sa période règle ça veut dire que y a des complications Yo xamné am nga ko da nga war dem seeti gynécologue bi nga expliquer ko mom mu xol exactement quelle sera la solution pour ça dafa mel tay tey jii sax nga wara a gis say règles mënuloo gis say règles dañ koy déclencher loolu yëpp amna. parfois nga tok wara a gis say règles gisoo say règles nga dem seeti médecin en pensant que peut-être da nga jël grossesse bo démé un médecin bi mom bu lo xolé gis ni tu n'as pas de grossesse xam na né kon tu as un problème de retard de règles. mën na la jox lo xam ne day déclencher règle nga naan ko mu déclencher règle nga reprendra sa règle normale donc c'est pas parce que tu n'as pas vu tes règles pendant deux mois que forcément tu es enceinte ce n'est pas ça pour savoir si tu es enceinte ou pas loolu mënoo ko deviner da ngay dem ci médecin mom moy def diagnostic bi wax la exactement ndax nga ngaa ëmb wala ëmbuloo ñoom bu ñu la touché xol parti ñu wara a rek dañ xam mais mën nañ la toucher gis nañ que tu n'es pas enceinte et que quand même tu as un problème pour voir tes règles ça veut dire qu'il y a un il faut qu'on le déclenche ñoom ñoom dinañ la jox li déclencher règles c'est pareil pour les pertes blanches quand tu as par exemple des démangeaisons et des pertes blanches qui ont des dafa ça c'est des infections qui ne sont pas très graves c'est dû à une bactérie boo xamante moi moi qui indi habituellement. D'habitude, d'habitude Bactérie ovules la antibiotiques ak bactérie boobu nan koy capter d'habitude si mauvaise hygiène la rek. mooy nga dem toog foo xamante ne dafa ou wala nga toog ci benn siège boo xam ne de dafa amoon infection par exemple ou le, comme on parlait la dernière fois de les les les chaises anglaises yi xam nga moo parents et de parents et des wax ils préfèrent l'ancienne méthode qu'on avait avant moi chez turque nous nga voilà ça ça ben organe du du du laal bi xam nga chaise chaise anglaise c'est un défaut en fait tu t'assois dessus xamoo kan moo ci toog xamoo nag kooku am na hygiène xamoo dara donc ñun jigéen ñi loolu mooy suñu impact parfois tu t'assois sur une chaise anglaise boo xam la personne qui s'était assise par exemple avait une infection am na noo ciy toogee tu n'as pas bien nettoyé mën na la wàll parce que c'est des choses qui se yoo xam ne dañuy wàllaate donc loolu yëpp dafay dafay am ci aspect euh, infection génitale yooyu noonu nga xam te ne jigéen ñi dañ koy am mais en général, quand quand y a des démangeaisons, quand ça commence à gratter, quand ça commence à avoir une petite odeur, c'est pas très grave, c'est pas une infection très grave, c'est une infection qui peut se soigner facilement. Mais da ngay a médecin bi mu la euh, euh, médicaments tu xam ne koy dafa pour les personnes qui sont en couple. habituellement vous traiter euh, la partie génitale Madame, infection génitale du en général faites que c'est une infection qui n'est pas trop grave comme par exemple juste des démangeaisons un peu d'odeur et cetera mën nañ la traiter yow rek ku jigéen mais am na fu infection bi di on dañuy obligé traiter sa partenaire. D'accord. donc moom day naan parce que moom ci boppam il est infecté wàll nga ko bu yag daf ko xamul rek. yow ku jigéen ki nga ko gor ki infection. Tu dépend origine euh, non par la force dang koy wal. tant que tu es infecté da ngay wàll ku ki. Mhm. alors bo walé ku gor ki c'est pour ça que y a le danger là-dedans parce que dang koy wal mom bu fekkee c'est quelqu'un d'infidèle. Ben ça veut dire qu'il allait propager infection euh, ah, partout il a chopé fépp fu mu mhm. eh, man toujours damay gis ne da ngay wax ne par exemple bu amee jigéen bu amee infection comme bu ñu ko doitee soit day changer couleur wala dafay weex mhm. mais léegi bu wàllee ku góor gi mhm. moom yan signe lay am ba mu xam ne euh, la wax xam nga tey comme li ñu wax laa day fàcc ci infection urinaire yi di wax ne góor ñi ça se manifeste pas forcément de la même manière góor mën na am infection lu yàgg te du ko xam pour mu manifester wu ci ça sax dafay dem ba egg ci benn niveau bi maanaam infection bi yàgg ci moom mooy waral muy gis ay signaux signaux yi la plupart du temps bas ventre bi mooy wala hein, je pense. voilà oui day xasan. Mhm. parfois partie génitale bi ci boppam dafay xasan daf koy def ay boutons. dafay mel comme si fait irrité ou da ngay am ay boutons ay picc. Mhm. comme ni ko jigéen ki di amee irritation ou euh, kii euh, partie génitale am yow tam noonu ngay amee irritation. Donc nga koy sentir mais tu te dis que parfois avant c'est un truc ben affaire vous passager le nii rek fait que non non non tu as une infection infection bi mooy def bouton yooyu noonu mooy tax ngay ngay gratter ou comme tamit mën nga di am tout le temps douleur au bas ventre ngay bëgg parfois euh, éjaculer nga sentir ben pression ben douleur bu metti bo xam tane dang koy amaale en même temps ni muy ni ngay presque même réaction yi ngay am ci euh, infection urinaire bi mom ngay am tamit ci ci infection bi nga xam tane mom ngay am aussi. Mm-hmm donc loolu yëpp ay aspect la yoo xam ne dafay exister ci euh, ci euh, infection génitale yi ku jigéen ki comme ku góor ki da koy am te la plupart du temps sax da nga koy gis moo tax li tax ñuy tere sax ñu tax ñuy bëgg tout le temps di traité ku góor ki ak ku jigéen ki mooy tey bu fekkee ku góor ki par exemple dafa am benn ñaar ñetti jabar xam nga tey <coughs> yow buñ la bu la médecin bi traité yow kese moo tax ñoom boo demee sax habituellement si tu es marié dañ lay poser question à savoir da nga am wujju est-ce que tu es dans un mariage euh, polygame ou pas pourquoi ñu lay poser question boobu noonu parce que bu fekkee ci mariage polygame nga am même bu ñu traité ku góor ki bu ñu la traité yow ak ku góor ki vous n'êtes pas encore sorti d'affaire parce que beneen jabar bi tamit am na ko. Mhm. donc ku góor ki bu delluwee ci beneen jabar bi day récupérer waat infection bi ñëw joxaat la ko yow. donc mu nekk benn tour boo xam ne daf koy def. loolu moo grave au fait ci infection génitale mooy bu xasee ba dugg fenn moom il faut que ñi nga xamante ne ñëpp dañu sekk relation sexuelle boobu noonu ñu traité leen su fekkee ne loolu defuñu ko fu mu ti dem tamit ku góor ki bu demaatee fee tamit da koy jëliwaat ñoo jox la ko rek noonu lay demaatee nga def mu nekk benn genre triangle boo xam te ne voilà du du du arrêté bon après euh, tu peux aussi te traiter traiter le gars ngeen dem ba wér mu dem shoppe ji ko feneen tamit ah ñëwaat joxaat la ko noonu daal lay demee daal <laughs> Voilà. Juste pour dire que la partie génitale de la femme est super sensible. Hyper sensible. Et facilement, elle peut copter des, des infections génitales. Des, infections génitales, il y des problèmes au cancer de col de l'utérus parce qu'il n'y a pas eu de bon traitement. Mais pareil, infection génitale, ou répétitif. Quand ça commence à excéder, madame, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça veut dire que tu, as de fortes chances à ce que tu arrives à un cancer de col de l'utérus. C'est clair waaw parce que loolu finalement dafay dem ba dafay affecter carrément sa utérus bi. bon ça veut dire que le le premier réflexe su fekkee da nga may ay signes yooyu nga énuméré c'est d'aller voir un gynécologue. voilà ou bien un médecin généraliste à la limite. justement c'est-à-dire voilà. que quand tu commences à avoir des infections nga xam ne ni que lii déjà anormal na mooy loo xam te ne tu n'as pas l'habitude de le voir ay slip buy tooy am na ñoo xam te ne seen bi mën na bañ a def perte blanche mais dañuy mel ni ku am ndox buy génn tout le temps ci ñoom. seen slip bi tout le temps dafay tooy ça aussi c'est un signe de l'infection sa perte blanche yi di changer couleur c'est un signe d'infection ngay commencer di gratter wu à chaque fa di am ay démangeaison c' est des signes d' infection boo seetloo sax d' habitude boo demee ci médecin bi bu lay defal traitement daf lay joxaale euh, gel intime boo xamante ne dafay permettre mu wàññi irritation bi ah, mais ça est dire que gel intime bi c'est faju la genre ah, citéal ay euh, saforel yooyu yëpp c' est des trucs yoo xam ne c' est pour euh, enlever les irritations ça nettoie et ça ça diminue les irritations mm-hmm. mais ça ne soigne pas l' infection il faut que les gens comprennent ça am na ñoo xamante ne bu ñu amee infection gis ay affaires yu bizarre ci ñoom rek pour ñoom mën nañ faj seen bopp da ngay gis ñu dem jëndi benn gel intime en pensant que en se nettoyant avec gel intime bi dañuy faj infection bi fajuloo infection bi tu ne fais que nettoyer ton vagin et enlever les irritations maanaam partie externe bi rek ngay li désinfecté rek désinfecté externe bi lay yem maanaam demul ci interne bi interne bi pour mu faju il faut nga dem ci gynécologue mu jox la ay ovule wala mu jox la ay comprimé yoo xamante ne da nga koy naan loolu mooy tax loolu mooy ray microbe bi ci biir ba nga xamante ne yow di nga mën a reprendre sa train train de vie normal boko defulé ci infection boobu ngay dëkk du mës a dañ té bu infection bu tant que mu ngi nekk ci yow di perpétuer moy dem ba dem ba nek infection bu gëna graw manam nga mujj sa tête blanche yi changer couleur nek marron ba finalement mujj nek vert. benen question euh, xam nga euh, d'habitude légui maintenant la tendance maintenant moy jigéen ñi dañu bañ mauvaise surprise. Mhm. dañuy sol protège-slip. waaw est-ce que euh, tous les protège-slip se valent. wala tous les toutes les serviettes hygiéniques se valent. Ben, est-ce que lolu mënul nek source de problème ou infection si si si si si parce que bon, cette sax dañuy wax ne euh, prothèse slip bi nit ñi dañ koy def mais c'est même pas recommandé. ok alors on le fait normalement tu ne dois pas mettre chaque jour un prothèse slip. de temps à autre nga ko def tu ne peux pas mettre tous les jours un protège slip ba par exemple def protège slip il faut nga xam ban ngay jël parce que les gens ne comprennent pas moi, que que ce soit les serviettes hygiéniques que ce soit les protège slip ku ci nekk ak ni ngay defaree sa protège slip y a des il y a des entreprises mais ce sont pas des entreprises pharmaceutiques ce sont des entreprises cosmétiques qui font des produits il y a des normes à respecter pour les pour les services c'est pharmaceutique. Euh, non je expliquer ah produits c'est des produits pharmaceutiques. ça les gens ne savent pas alors. non mais évidemment comme tout produit tu vas avoir un produit ça doit passer par les normes par normes. alors ils doivent normalement ils peuvent ne pas être des produits cosmétiques mmh. euh, des produits pharmaceutiques mais respecter quand même les normes yi nga euh, médicalement parlant. mais parfois il dañ ciy def seen i propre faire. alors il faut savoir décerner les bonnes serviettes hygiéniques et les mauvaises serviettes hygiéniques parfois nga jékki-jékki fii ñaatoon nga fi jékki-jékki dégg fi benn turu serviette boo xam ne mosoo ko xam. moom laa leer nii. da ngay dugg des fois ci grande surface yi nga gis ay centaines de serviettes hygiéniques yoo xam te ne xamoo fu ñu soqee ko. xamoo kan moo parfois c'est des usines des des des entreprises privées qui le font à titre commercial. Eh ben, alors nous xamou lo lan lañ ko defaree xamou lan mo ci nek, xamou ban élément lañ utiliser pour faire ko y' a pas de contrôle suffisant derrière pour que ñu mun xam il peut y avoir des infections dedans il peut y avoir des trucs dedans ken xamoul. nga jël ko utiliser ko parfois même les serviettes hygiéniques sont bourrées de parfum tout le monde sait qu'un produit à base de parfum daf lay lakk da lay irriter ah quand il y a trop d'alcool ça t'irrite Moi, parfois nga tag nga tek serviette hygiénique bo xam tane par exemple tàmmuloo ko nga gis ne sa booru c'est parti qui bi de faire boy les irrité où là tu te rends compte que ne jigu lan moo tax jigule mooy am na élément bu ci nekk boo xam te ne peut-être adapté wul ci sa type de peau mm-hmm. donc il faut nga dem wuti ji savette hygiénique ba xam ne moo adapté bi nga xam te ne leer na la ne bii ci norme yi la nekk moo tax d'habitude les gens vont à la pharmacie parfois pour aller acheter euh, des serviettes parce que foofu au moins ñoom xam nañ serviettes yi seen composants yeeg yooyu sinon dans les grandes surfaces aussi tu trouves de bonnes serviettes hygiéniques parce que li ñuy jaay ci pharmacie moom la ñuy jaay ci grande moo tax le premier réflexe même su fekkee da ngay dem fële da nga naan ko euh, jaay ma nana voilà <laughs> quelque soit la marque en fait c'est un réflexe en fait c'est la marque donc euh, il y a il y a plusieurs types il y a les Tampax qui sont là. Il y en a qui n'utilisent pas de serviettes uniques, qui utilisent les Tampax. Pourquoi les Tampax Parce qu'en en général, les Tampax, quand tu les utilises, tu as la possibilité de porter tout ce que tu veux, de même être tout nu, euh, de partir parce que de am fuite. Tampax, c'est le en fait, Il y a aussi, il y a aussi, euh, le bâtonnet là, avec le petit fil qui pend. Oui, moi tampax c'est ça qu'on appelle les tampax mhm. moi bi nga quand on coton donc eh, introduire tu biir nga donc fil qui dépendre, pendre on les permettre de alors y a un y a un temps d'utilisation temps boo ko war a def genre chaque quatre heures tu dois le changer. bu fekkee tu as le bon Tampax parce que am na ci yoo xamante en moins de deux heures tu as la fuite mu mu def fuite ça dépend ci yow nan ngay euh, sa menstru yi nan lay ñëwee. am ñoo xam ils ont beaucoup de menstru pour les ah début de jour les premiers jours am na ñoo xam ne seen yi bëriwul donc dépendre na. donc moo lay won ne choix bi choix bi dépend na yow ci sa ci sa sa organisme ni muy fonctionner ñii ils peuvent supporter tel produit ñii mënuñu supporter produit bi parce que y a peut-être un élément boo xam ne jigu leen wala élément boo xam ne jig donc il faut vraiment savoir comment choisir euh, les produits qu'on utilise sur la partie génitale mais comme li ma wax rek benn gel intime fajul infection dañ mhm. ko dugal ci bopp bi aucun gel intime ne soigne une infection il soulage tout simplement il nettoie, mais il ne soigne pas. Les médicaments soignent. Voilà. Pour avoir, pour que ton infection puisse s'en aller, il faut aller voir un gynécologue. Mou defaral la consultation xool jox le traitement bi nga xamante ne moo adéquat. bu fekkee dafa war a jaral traité ku góor ki ngir yàlla góor ñi bu ñu ñëwee ne leen traité wu leen. traité wu leen seen la. Mm-hmm. parce que xam lu tax si tu ne te traites pas bu ci doom juddoo l'enfant peut naître avec cette infection parce qu'il y a des gens qui peuvent prendre une grossesse en ayant une grosse infection am na xam ne sax bu ñu en état la am infection vaginale grave, graaw mhm. yoo dañ leen koy traiter en même temps ci seen grossesse voilà c'est dangereux Lolu c'est na dem ba affecter bébé bi Amna ay ay xalé yo xam dañuy juddu ak ay infection yo xam ne kenn du xam fan la parce que tout simplement ci grossesse bi la yaay di mo amone infection bu répétitif ci bir grossesse am wala qui n'a pas été bien traité ak yooyu nonu mu dem ba indil ko euh, indi encore encore tu vois. merci beaucoup Tata Maïté de l'endroit c'est infection vaginale avec perte blanche.